yaa dib sëriñ yaa di baay ak ndey di fajkatu lor cuuraay seytaane ngi nii dikk na cuuraay bi baax ci seytaane ak jinne yow mi am faru rab mbaa mu tere laa sëy wala ngay merte kenn du la def lenn mbaa nga am sax coro rab yow mi fooye sa bopp baa ngay tiit guddi wala sax ngay gént yu garaaw yéen ci nekk ci biir néegu sëy day cuuraay bii moo gën nemmali ndax nag léeg-léeg nga bëgg bëggal bégal taal cuuraay mu mujjee ci xuloo cuuraay jàmm li yegg si na jàmmi kër jàmmi njaboot kër gu amul jàmm ñuy féewaloo di xeex guddeeg bëccëg seen cuuraay ngi nii bu la jàppee sab cuuraay ngi booy am yaakaar wutal sa cuuraay ngi say mbir lu ci siiw yàqu sab cuuraay ngi wooteel Serigne Jibril Niang ci 77 677 77 08 yal nan la am faaw am sa Ah. Ano ba yun nga, Def? yëg nga ne bi fi wàcc dem si guddi. kon baax bu am fit xale bu ñeme kapabu. bu capable sa xarit ki benn bakkan ngay ànd ak moom subaa ngoon guddeeg bëccëg matee ngi di suwaar nga ne doñ ñet jëkkëram ñëw ne dangaa toog di wujjeeg moom ay ah, yow doom la yow nga am man bay ana may damay soog a te jaayaguma dara buma ma sokkeeg ay wax man sax nak leeroon na ma yow ya, ma nara a sokkeeg ay wax buma um dégg nga ma bu naaje ma ñëw tontu la limo moom zombies bi moom nañ kaa day jox yow affaire salte yi mooy lan yow sa affaire salte yi ngay def wala la. sa affaire salte yi ngay def wala la bu ma ma ko def nekk sama mag bu ma ko bu ma ko def lii mooy lan. mu dóoraat waaw. nga salte waaw lii laay lekkee mu dóoraat waaw. xaw ma loolu ñun décision bi ñu jël si jëm boobu dañu yéex a jël. décision bi ñu jël dañ koo yéex a jël nekk sa kër ga di wóor mel ni ay mag ay xale ñoo mën a wóor. soxor lépp lépp nag maas la maas dafa bon fa lay nekk di la napp di dóoraat yooyu noonu moo tax dafa soxor. maas maas yooyu yaa ko faale Eh, yaa faale maas waaye man man maas bi jën tuuma yaa ngi dégg en tout cas daal nañ def li ñuy def suñ demee kër ga mel dañoo woor fas que yaa ngi dégg yow nag xam naa la da ngaa seytaan te ngay dem soo demee ni nga doon encore di bërëngu defal noonu ngay bërëngu fii may bërëngu fii yaa ngi may dégg est-ce que falaa yam nag décision bi ñu jël ni buñ si dara jënne sa ngoon nañuy daje fii toog lekk li ñuy lekk demaat kenn duñu xam bañ a bañ a xamal dara est-ce que yaa may dégg baax eh, yaa ngi ni da nga ragal na fi yaa ragal nga fi. da mm, ngay ragal da ngay ragal ak oo rus man dafa may man faale ma man kër ga façon faale ma fa ragal ma fa kenn dafa may ma bëgg affaire ak sonné ma dama koy bàyyi xel. dañoo soof ñun ay 18 ans kese la ñu am 18 ans kese. soow bi soow bi noo def ba xam paa bi. na ma yónni benn ngoon mooy bisaab boobu muy defar ngoon gi. Ah, bi waaw léegi. ma romb affaire yi xet bi neex ma après ma jënd ci lekk. yaa ngi ñëw si paa yaay mbaam kon nga da nga da nga jaasi suuf dem gi ñëw après nga ñëw sa kër ga aju comme si da nga hm, mas day ñëw moo tax ñu ga bravo les enfants <laughs> ah mo la ñaan la yow mi yow yaa ko jox dégg ma ko kon fi may siège mas moom la lay moom la billaay la pour julli julli mas moom moo ne ma ah man dama asma naa ñëw nañu ñëw fii nii dañu ñu lekk. day fen moom moo ma jaaxal ma indi ma fii dina ma maa ngi lekk eh, lekk ma woon man ngay fenal. day fen day fen vraiment jaale. Rose yàlla. yéen a ngi eh Sibir. Eh, lan la lan la maas maas lan la. tata ñii teere balaa la fekk ñu lekk caakiri te lu mu ci gën a métti toog si buntu jàkk ji nag naan dañuy julli moo war ma doole bi ñu bëgg a dee. waaw mas booy ti xale yi nga indi leen ba ci biir kër ga boo leen indee ba ci biir kër gi nga dóor leen moo gën nga leen di dóor ci biti ci weeru koor bi nit ñi di ko gis yow tamit. tata ñii sama rakk lañ am naa droit yar lañ ku mu ci fekk lekk dinaa la dóor. xam naa say rakk lañu mais nga dóoree leen ci biir kër gi rek. ndaxte ci weeru koor lañ nekk. Ah, ah, man de waaru naa man tey xale di dóor rek. lan moo la waar yow Asuba lan mooy sa problème. luy sama problème xamoo ko. ba tax ku tudd sa waa kër sa karoy bakkani jug. Asuba réew nga de yow. gis nga yow xam nga lan laa la yëgal dama bëgg nga dimbale ma dégg nga. yow eh du ma la dimbale dama bëgg nga noppi laa la wax dangaa réew. gis nga ni nga jaaxaane gi noonu laa jaaxaane ci taabal sama réewande nag boo ko tuddee ma tay la ci saaf ak sama jaaxaan ci taabal dangaa dégg ma la wax nga bucci ma bucci damaa bëgg nga régler asuba yow lan la yow mën nga maa wax réew nga dañ bokk ku ñuy fanaanoo man ak yow moytuma de maanaam nga moytuma laa la wax sama réewande boo ko tuddee tey ma tay la ci saaf laa la wax loolu laa la wax réew nga toog yow lan la yaay e du see dugal rek sa biir néeg yow e dugal sa biir néeg rek man li ma war a lijjanti naa ko lijjanti mag bu réewee da nga koy wan donc day tase xale bu réew. asuba da ngaa bëgg nga man du ma sa morom laa la wax. fii borom ma sa morom laa la wax borom sa ñaar yi la. réew nga ba. mu naan réew nga da nga réew laa la wax. Hmm. sa réewande bu bon bi nga yor. jikko bu bon nga yore yow mi di féewale ay xale. man sa doom yi samay doom lañu. samay doom man maa leen jur jural li nga jur ma jur li ma jur say yoon newut samay doom. ñoo bokk benn baay da ngaa jaaxaan sa yoon newut ci. nga ma ñoo bokk benn baay yow lu ma la nala wax dama ko réew bay bëgg a dee boo nee as muy wélwéli ci kaw nit ñi koor gi nii nit ñuy bëgg a dee ngay wélwéli mel na soble suñu sànni yow kay yaa fi ubbeeku a noppi yow mi yaa mi yaa fi ubbeeku cëm ko rek yu ëppam cëm cëppili maa la bañ ana daal moo téye xale yi di dool ci biti ñuy lekk caakiri ci weeru koor gi léegi ma ne maas na jiital xale yi dugal leen ba ci biir dóor leen moo gën parce que ci weeru koor la ñu nekk rek aana jóge fële rek commencé di wax aana lu mu waxul lu ma yàqul nag amul lu ne wax na ma ko mu ngi nii nag. allo lan moo xew. dara xewut lii daal lenn dong la maas moo jiital xale yi di leen dóor ndax lan da leen a fekk ñu lekk caag rek soow maas nag am na droit corriger xale yi ndax ay rakkam lañu. waaye moom kenn du laal ay doom kenn du tudd ay doomam boo nee doomam yi o oh, mu mel ne karaw yu bakkanam yi nga rocceeku muy loolu ci sama kaw ne ba gay ma tamoon dëmmet jotewul jo xolal waxuma ko lenn laa ko ma ne waxee woo ko noonu dama ne nga dimbale ma laa la wax waxee woo ko noonu yow daal yow gis nga doom yi yow yaa leen séddale mais man séddalewu ma leen gis nga say doom say doom samay doom lañu man séddalewu ma leen yow nag yow mii di séddale nag séddaleel asuba li la naqari man teguma la ko xam nga yow lan moo la metti samay itu ñom dañu bax ñom ñoo tek deggo ma de yow da ya fi jur taw bo xamante ne day tawé ku ne si ngom balaa yuqut yaxaasut. Eh, eh eh arrête yéen bu len ma fonto ñak ngeen fay do trop li moy lan mu len tey seen wax mo seddal xalé yi de. yow lolu nga fi nekké yow mi lolu nga fi nekké bu dugg weeru koor wi ngay ngal ngali ci kaw nit ne parle gar sax dawra yow li ngay wax lan la yow lila metti dalay metti ba ba ngay dee mëno ko fajj mu neex la dalay metti mu naqar la dalay metti oh! la ilaha illallah waaw man téemaa daw yéen lan mooy lan mooy seen problème xanaa ngeen fóon ñi ngeen dëkkal xam nga lu ma leen bëgg wax yéen ñàkk ngeen ñoom ñàkk ngeen fayda ñàkk fulla ngeen fii la jay naa toog amul lu ma waxul ne ma maam sa kër gi soo ko réglé wul man dinaa ko réglé say jabar respecté wuñ la say doom respecté wuñ te wax na dëgg ndax feeñ na tey ci jotaay bii noppi leen kenn lànk ne bañ na du noppi léegi nag xam nga lan laa bëgg ngeen wax ma yéen lan ngeen bëgg léegi nag toog leen ma xam lan ngeen bëgg yéen maa ngi dem soof bay bëgg a dee li la naqari teguma la ko li nga war a wax waxoo ko li ne léegi ci kër gi ne guy di tawee ku jëmale yow mal te du yegg mukk ci àddina loolu nga war a lijjanti gis nga kër gi sama doomay faj bu mu gàccee mu neex la mu naqari la nga bëgg ko nga bañ ko asuba di nga dee. yow daal yow yaay séddale. di nga dee de. yow yaay séddale xale yi man séddale ma yow mi moom séddale nag séddaleel say doom samay doom la ñu. di xoolal lii nga riigu sax sama xaalisu doom la jar. waaw bu yeboo nga bu bu yeboo. waaye say doom samay doom lañu. doxal di séddale man aw ma dara lu ma lay wax parce que fii la sama nijaay taxaw wax nga tontu ko. ma ne toogal. lii dagg sa xol xam naa ko danga dee de ak ngay dee.